Euh, sëñ bi euh, ci màggal gi doon nga dal Cheikh Abdou Gaynde Fatma ak ñi yore woon communication bi sax mën naa koo tudde noonu ne ñoom dañ leen fee war a jëlee ñoom raw du rayaaxin moo kii te loolu ñu bari dañ ko wax ne loolu du woon cadre politique lan nga ko waxee ci yow ban cadre nga ko mën a waxee. xam nga sëñ Saliou loolu du ma ci dellusaat ndax loolu jàpp na ne passé na passé na waaye daal li wóor ba wóor mooy. Hmm. lu ñëpp xam. loo jox wax koy gàttal. da ngay bañ ñu yëngalaat dossier bi ñoom daa mel ni doon nañ bëgg a def pelante de daa ah, ah ah man de maa ngi nii moom gis jotuma benn pelante soo ma jotoon pelante yi dinaa wuy ji. ah defe woon ay introation yi moo ci am ba defuñu pelante sëñ bi li nga leen wax daa garaaw nag de. Ah. ci ni du ci cadre politique ñu sëñ bi wóolu leen dénk leen. kii bi communication bi xam nga sëñ Saaliw tagg ñii gëm waaw xam nga sëñ Saaliw Tuubaa dafa doy waar naqaree hmm. waxe ndax da ngay wax dara. Hmm. ka ngay wax xam ne yow moom ngay waxal. Hmm. yow mu ngay wax xam ne yow kii ngay waxal mu bëgg a làqatoo ci ginnaaw kenn dem naan diw lay waxal ak diw lay waxal ndax xam nga ne bëri la ma waxoon ñu ñu ko doon moomale mm-hmm. ñoo xamante ni samay waajur li mm-hmm. ñoo xamante ni tey jii fi ma teg sama waajur yi fa laa leen teg wala fu raw laa leen teg mm-hmm. politiciens yi làqatoo ci commission bi nag di def seen njubadi ñoom xam nañ ne ñoom laa wax la te buñ ma dékkaadoon micro laaj ma ci ñoom la ma waxoon dama ko gën a dëgëral mais du ma ci weddi dara defe na woon da ngay fii sax ci Tanim TV da ngay jégalu ah sëñ boo gisee kuy jégalu mooy ko def erreur ah. man jàpp naa def ma erreur bay jégalu kenn li ma la wax na ñoo xam ne ba àddina tukki sama xalaatul ma yëkkati genn kàddu gu ñaaw wala ma yëkkati benn tuuma di ko def seen bi mhm. ndax li sama waajur doon man mhm. ñoom loolu lañ doon ci man mhm. waaw nit nag du toog ci garab gu sedd guy di ko gor wala bu garab gi daanoo bu ñëpp dee wuti fu ñu feexloo yow di nga wuti foo feexloo kon xam naa ku ci nekk man la nga doon ci man xam naa it li may def lan la mais ñi nga xamante ni dañuy làqatoo commission bi di politique jël commission bi politiser ko ñooñu laay waxal te dindiwuma ci benn virgule te xam nañ ne ñoom it ñoom laay waxal mm-hmm. ñoom ñu laqatoon na ci ginnaaw ay kilifa diine naan mm-hmm. diw yoo lay waxal diw pelante ko diw pelante ko mm-hmm. ñooñu maa ngi doon xaar seen pelante ba ñëw ñu dem yóbbu ma ba xam la ma waxoon dinaa ko dindi wala dara buñ gisee koo xam ne dañ ko intimidé muy daw nañ ko xool xam ne du Cheikh Thioro man année ba ma judd ab ragal juddu wu te aw ma mbokk moo xamante dañ koy xooqatal muy dellu gannaaw kenn ku yàlla bind koo yow nga jàppoon dafa def erreur li nga war a njëkk def foo ko laaj ko li nga wax foo ko teg mu hmm. leeral la li mu la wax fu mu ko teg hmm. bu dee jàpp nga dafa def erreur nga ko da hmm. naan ko da koy pelanteeg buñ ko pelante état bi moom lay wër ak nangam ak nangam bisim daa loolu rek laa doon xaar mais daal ba wóor mooy ña ci nekk man oh, waaw di samay kilifa cëru kilifa laa leen jox te xam ne ni ñoom cëru kilifa laa leen jox ndax bi biñu defee seen réunion boobu li wóor ba wóor mooy ñi ci honnête ñëpp dëgg ñor leen wax nañ ne sëñ Cheikh de bu xamoon ne ñun ñi ñoo ne ci commission bi ñun duñu tudd hmm. te ñoom it xam nañ sama jikko xam nañ ne man cër boobu laa leen jox hmm. ndax man du ma triste du ma def lu ma gëmul oh. hmm. sëñ bi émission bi jeex na yow sëñ bi lu taxoon nga yàpp ministre intérieur di ko tudde ay cuuj yooyu te yow ëppoo ko de sëñ bi <laughs> ah? ah damaa gis plateau boo toog cuuj bu ndaw boobu nekk intérieur nangam waaw xam nga loolu euh, ci ban côté nga ko tuddee cuuj ci ci ci non xam nga xanaa doone tuuti bi moo tax ma ko cuuj waaw suñu Saliou nag maa ko ëpp na ah. <laughs> kooku yàlla yàlla dogal na ah. li ko waxoon laa koy waxaat ah. assemblée toog na mbokkam yëpp toog mm-hmm. ma ne ko ma yéene sama bopp laa la yéene te xam naa ne li ma la yéene it mm-hmm. moom la la président Sonko yéene mm-hmm. ndax waajuram la woon ak waajur Ousmane Sonko moom gannaaw raay la dëkk mal Sonko ñu dëkk aneen ay maam ak maami Sonko xamante woon démb tey door a ñëw. Mhm. la gu rafet rafet boole ñu. Mhm. ma xamal ko ne ba ba ngay jàng. Macky mhm. Sall fayalu la sam njàng. ku jàng ba nekk magistrat kooku doo n'importe qui. ma waxoon ko ne ko bu la kenn dugal ci ay Sall buloo. ndax Macky Sall ni muy def ñëpp xam nañ ko. def na ko Mimi Touré. fexe ba Mimi Touré am ay noon tey jii Mimi Touré foo ko tuddee waa PDS saaga ko. foo ko tuddee waa Kër Khalifa Sall saaga ko. tey jii gis nga yëpp. ba desul lu dul jox ko poste présidence assemblée nationale mu indi benn marionnette am imposé ko jox ko poste ba ba pare yëmutu mooy dàq ko génne ko assemblée mhm. mhm. mhm. na a alerte ne ko fa nga bépp ñaawteef bu def Ousmane Sonko. Antoine moo ko piloté. bépp ñaawteef bu ñu def militant Pastef Touba Antoine moo ko piloté. 53 personnes yi nga doon dégg ñu nekk njaareem ñëpp. ñu mhm. jàpp leen ci turu euh, ci ci ci ci combat politique bu Pastef. Mhm. moom moo leen jàpp la. Mhm. teg fii ay xaleem ku yëngu ñu saaga la di la fekk di dugg ci ay groupe WhatsApp di la jàpp. kooku nag yow bu fekkee na nga ko yéene jàmm. il faut que nga ne ko fi nga jëm baaxul. delloosil sa xel. ndax bëri na man am na am avant politique di am. amoon na ay rakk yoo xam ne bu ñu demaan dakaar kër Antoine la ñu dal. te boobu Antoine nekkagul dara. dara nekkagul am na ñoo xam ne ñu ngi bii tey ji bi. waaw ah, bu ñu demaan Dakar kër Antoine la ñuy dal Antoine di leen seq ay teranga donte man musuma koo jox loxo musuma koo gis bët ak bët. Hmm. kon kooku lu muy bon bon am na yàlla. jaale jaale ji woo ko papaam bi gaañu. Hmm, ko ndax sequñ ko man ak moom. Ousmane jaale mais nag ñaanal naa hmm. noonu la nekk waajur ñun ñu dëkk xombar ñëpp. te xam naa it ay mbokam ñoo xamante ni eh, samay samay samay samay mag. wax nañ ni ñoom ay nit ñu dëgg lañ mooy ñoom seexante joon ak yu mel noonu. kon jàpp naa ne fin bi mu bokk. miritewul mu mais politique def ko dugal ci loo xamante ni baaxul. Mhm. te lu àdduna bi dafa xat ndax ji li mu def président Ousmane Sonko yëpp jàpp ne rein succès la ndawam la. Mhm. léegi lan lan mooy résultat bi lan mooy résultat bi. Mhm. kon daal encore une fois képp koo xamante da nga nekk ci nguur. Euh, ñu jox la yenn poste de responsabilité. booy jëf deel xam la ngay jëf lan la. ndax adduna bi dafa gàtt te adduna bi day werangiku. di sëñ Baye Jaxate waxoon rek adduna day werangiku nga toog ci luy werangiku loo bañ bañul werangiku. Mm-hmm. tey jii Antoine yaag moom a yem. Mm-hmm. du génn te kenn du ko escorté kenn du ko gàtt. yow ministre la di sëñ ah, sagaru ministre bee mu yor nga xam ne daanaka dañ ah, ko suturaat rek. dox te béyantoo mu feneen fa. Ah? loolu yooyu xam nga mm. yoo xam ne da koy yàq ak yeneen ak yeneen tey Antoine loolu mënatu ko sëñ Saliou. Mm-hmm. bu lay def a delloo gannaaw rek ci kanam a nekkati. Antoine moom fu kon nag yëbbu ma ko dama ko yéene woon jàmm xamal ko fu mu jëm di ko alerte mais li ma ko yéene moom mhm. moog li ma yéene sama bopp ñoo yewoon te xam naa ni li ma ko yéene loolu ko Ousmane yéene woon mais nim saltale jëm ci Ousmane saltale jëm ci Pastef sëñ bi sa émission jeex na ñu ngi lay sant bu baax ñu bàyyi la nga tàggoo. sëñ Saliou kontaan nañ trop. Mm-hmm. comme ni ma la ko waxee woon rek. bi may mm-hmm. nekk mbitim réew. Mm-hmm. ne la bu ñëwee moom bala maa def benn émission. yow laay njëkk defal émission. ndax patriote yi nu ñu apprécier liggéeyu Tanime TV. ci ay chroniques yooyu def. te lépp it du ma ne du ma ne Ousmane moo tax nga def mais réew mi moo tax nga di ko def. ndax euh, barki démb damaa dégg. Euh, Mbacke Sylla oustaz Mbacke Sylla bi nekk Sud FM di ko mhm. ne li ma jaaxal mooy kuy wax dëgg ñu ne Ousmane Sonko nga àndal mbaa mhm. Ousmane Sonko daa ànd ak dëgg mhm, waaw tey yow sa site bi bëri na ñoo xam ne boo la invité duñ ñëw ndax dañu jàpp ne Pastef nga àndal te man de gisuma bokk naa ci ñi nga xamante ni da may da ngeen ma woo téléphone ne ma kat da def nangam da def nangam ñu waxtaan ci waaw mhm, mhm. ah, ndax man ni ma la faral di wax rek man mhm. yàlla suturaal na ma man du ma def lu ma gëmul du ma wax lu ma gëmul politique dama ci accidentellement mais du ma ndax lu may def day fekk ma gëm ko door koo def te ma yàgg wax mooy heure bu Ousmane Sonko bàyyee politique ma bàyyi politique ndax politique gu Sénégal moom bindoo na noo xamante ni ànd ak leader bu mel ni Ousmane Sonko rek moo tax nga mën a mucc fii mucc fañ jëm mais koo ci àndal ko du Ousmane Sonko da nga duma fii am ndax ñi ci des ñëpp seen bopp moo leen tax di mais Ousmane moom nekk président de la république ak nekk chef de quartier la yemale. Mhm. kon daal maa ngi wax patriote ñu gën a focus te déglu parti bi encore une fois. bu mhm. kenn parrainé kenn ku ñëw seen kër yi di wut ab parrainage génne leen ko te xam ne ci tappale la nekk. Mhm. ndax li ñu def Ousmane Sonko parti politique yëpp gisandoo nañ ko candidat yëpp gisandoo nañ ko kon bu ñu ci dëggee seen tànk mooy dëgg taxu leen a ndax lii képp ku jàpp ne dal ci sa kaw bis mën naa ñëw mu ndax nii Macky Sall yore réew mi lu yomb la. man am jàmm ko àndul ak man nga faq nga rëq loolu moom lu yomb kon jàpp naa ne fi nii moom mhm. wax ji joratul muy bari Sénégal yëpp gis nañ li xew mhm. kon nag ñuy wax Sénégalais yi nañ déglu parti bi te xam ne heure bu waxtu communiqué jotee mhm. dinañ communiqué Sénégal yëpp dinañ amandoo information waaw di la sant encore di la gërëm jërëjëf mbokk yi doon seetaan Tanime TV seen émission ku wal mburu tudd dëkk tey ñu dalaloon orna honorable député eh, Serigne Cheikh eh, Mbacké Serigne Cheikh Thioro Mbacké <laughs> ñu tuddee ko maamam <laughs> yow da wax yàlla foofu nga wax sax dëkku Serigne Cheikh Thioro la xombal moom jàpp naa ne ku nekk xam naa ne Serigne Cheikh orom eh, lay nuyu bu baax la siyaara baax di ñaan nag seen yéene ci réew mi ak mébét yal na yàlla àggale yëpp ñu ngi lay sant ci ni nga la nongul émission bi bi nga ñëwee yaanu wal sa bopp sax ndax yaanu waxoon ne bu ma ñëwee bala maa dem fenn dinaa ñëw foofu na ko waxe woon defe nga ko noonu ñu ngi lay sant bu baax kon ñu ñaanal la nga continuer sa liggéey salaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu Tanim TV Tanim TV nekk seen chaîne YouTube bu bees ñu jagleel ko wàllum